ko oh, njabootu Serigne Moustapha si nga eh, boo ñu doon wax dara ci Serigne Moustapha lan lay doon. Serigne Moustapha ku yar ay njabootam la. te tamit ku baax la xam na boppam te respecté nañu. Hmm. moom mu ngi lay jox programme kañ kañ ngay dem daayira yow par kañ. mercredi ak dimanche ak jeudi. en général boo leen demee ci programme yooyu lan lañ fay jàngal en général. dañuy jàngal ni ñuy dañuy tuuru kade premièrement dimanche mooy tuuru kade dañuy jàngal ñu respecté suñu yaay ak suñu papa seen féminine pour mag la te guddi àjjuma pour ñëpp la waaw. Euh, ngi jàngi xilaas. waaw ngay waxaat ci daayira bi. daara bi vraiment taxaw na lool te tamit jàng nañ ci lu bëri. daal mu ngi leen di dimbale. waa mu leen dimbale bu baax. waaw ci seeni morom ak ci école ba. waaw école ba noo fay dundee yow. par rapport ak sa yeneen moroom yi nga xam ne duñ ay mustarshida. damay jàng damay xaritoog ñoom waaye damay xaritoo googu euh, du tax ñu ñu détourné la. waaw. donc gis nga Mor li mu wax nee na moom sëriñ <laughs> espace yar na ko yarin goo xam ne mën na nekk ku ne ca école ba mais du tax nag ñu détourné ko donc mu nekkaat leneen loo xam ne dañ koy gis euh, ci ah xam nga ne kii xale bi ban classe ngay def yow. CM1. CM2. cm ay juróom-ñaari at lay am. <laughs> ndax moo fi def lu kenn deful moo fi wax lu kenn waxul feebar ñëw ñeneen kenn du gàmmu sëñ Moustapha ne mission wu maamam du tëdd mu gàmmu première gàmmu deuxième si la localité génne te booba mam Cheikh la ñu ma laaj année bi mu njëkk a gàmmoo si kursi bi muy fii ma wax ka si bi fii xam ka ma ne ka nag année bi xam naa ka wante mënu ma ko wax ci français moo wax ko ci olof ma ne bu ngeen demee ngeen jàpp ko ci français mun ne ma nag léegi si diggante sëñ Moustapha ma ne ko ma diggante sëñ Moustapha mu ne ma ne ko depuis ba daayira ba jógee ba suñu jooni tey max sëñ Moustapha fu ne yóbbu na mu ko dem naa colonie mu tëye colonie bi Tamba fu ne Mauritanie Gambie sëñ Moustapha fu mu oote dem na jàngal na ma yar na ma li mu ma jàngal laa jàngal mag njaboot dégg nga gërëm naa ko sant naa doomam ji mu en nag moo tax ma takku tey ñëw pour bugg a jën loo capitaine mais gaynde gaynde bu juree gaynde wàcce na wante gaynde du jur muus ma bugg nag sëñ Moustapha man li ma mënuma wax si moom daal minute bi ñu topp noo leen gisee ci champ de course ak ni nu bëree ni nu gaawee liggéey bi. waaw lii lii lii ku ko mën a am ci Sénégal sëñ Moustapha rek tàcc leen. tàcc moo am lii. képp yar gune fi mu ne bu doon dëkk koo ne kay béyee mu ne la xaw ma ni ñaa béyee. ah dëgg la kay. Ah, lii sëñ Moustapha ña def ko mu mu yar na gune yi raw xam naa ne ku ko déggal moom te tey kanam li jëm de kii mu fal doomam ji mu en wat sa watik wat sa watik mais ñëpp a ngi naan âge nga de maanaam mage nga ci ci âge mais teewul yaa ngi ñëw ba léegi wante ni ma mage ci âge taxul it ma doon mag noonu ndax sëñ Babacar xaw ma jëmmaam altine ja mu ne la si la am fukki ak juróom si la am ñi ma daan àndal colonie ñëpp toog nañu ba léegi maa ngi ndax fu mu oote ma dem gune yi daaw jéeg dañu ma bàyyi daaw la ñu ma bàyyi ma ñëw daaw jéeg bu ma jëkkee wax waroon na ñëw waxaat dañu ma fa bàyyi ren ña bàyyiwaat ma fa wante terewul pax naa sama xaalis ba ñëw du ma ko réccu ñëw naa wasalaam dama njëkkee. weesoo pay xale xale lu tax ñu bëgg la mère Binta Faye. addina bi gisoo doon ne dama masque wu sol kii bi wante si yoon ñu ma doon àndal ne dama nëbbatu wante mère Binta mère Binta loolu yàlla ko def sëñ Moustapha moo ko def. bañ nangu bañ bañ nangu waxal naa ko lu la yàlla may gërëm ak sa bañ du ko dindi te tafa bëggul lëndëm hmm. nay leer nay leer tafa bëggul lëndëm nay leer tafa bëggul lëndëm daa da ngaa bëgg a ndékki ji. dama bëgg a ndékki. daa mel ni da ngaa bëgg a ndékki ji. dama bëgg a ndékki dama bëgg ba ñëw. Maroc. maak sama doom noo ànd. lu état su noo dama koy éeg ndax ñaari hôtel la ñu ñu jëlal Maroc ma ànd sama ñaari paas sama doom ñaari paas sa xaalis ba. te lépp sëñ Moustapha te lépp sëñ Moustapha waaw. fi mu ne nii nag Makka lay wax dañu ne xamoo ko am ñaati at doo dem Makka man waa Makka ñoo ma soxla ñu ngi oote man Makka ma moo soxla Makka moo ma soxla nit ñi ñoo soxla Makka man Makka moo ma soxla. yoor yoor. yoor yoor ba. yoor yoor. yoor yoor. yoor yoor ba. indi leen loxo bi. loxo baa ngi nii. <laughs> <laughs> nay leer rek. nay leer. dafa bëggul lëndëm.